bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin fi ñuy tàmbalee suñu ay kàddu mooy xamal ñëpp ne lii du réunion bennoo parce que ku ma gis gis le ministre Seydou Gueye li li daan am rek ngay foog ne moo am mooy Benno Bokk Yaakaar moo tase en tant que membre de Benno mu ñëw ci réunion mais li ñu fi indi tey mooy dañu jàpp ne képp ku dem présidence président ne la kaay ma recevoir la salle des banquets wala ma recevoir la bu la gënal da nga ko biir bureau bi moo ma loolu nag bu amee président am këru boppam bu tudd APR nga bugg koo jàppale defe naa li ci des yëpp wiiri la ak guddal jël man nag nekkoon naa ci dynamique gu wiiri ak guddal jël ndax politique ak loolu ñoo ànd mooy ay calcul la pour xool bu baax fooy teg sa tànk ñaari at a ngi nii ñu waroon a dugg APR parce que président Macky Sall la ñuy soutenir politique am depuis 2019 waaye yàlla dogal ñu yor mouvement boo xamante ne mouvement taxaw la yor ànd ci ak sunu ay nawle gënuñu leen juddu ëpp ñu leen baat ñu wóolu ñu jox ñu baat ñu ànd ci ak ñoom doon ci liggéey waaye bi ñu xoolee li président de la république defal Médina yéen ñii ngeen seede ko ndax defe naa yéen a ngi woon keroog ca waxtaan ba 55 milliards war a dugg biir Médina lu jiitu loolu ñu defaral ñu assainissement Médina nga xam ne milliards ak lu topp la Bamba Fall doon ko ñaan boobu ba tey yàlla suturaal na mu yegg si président Macky Sall deselatul dara Médina ñun waa Médina ñoo ko desal ba tax ànd bi ñu àndoon ak moom nga xam ne gëmoon nañ politique am ba ànd ak moom 2019 à nos jours combat Benno Bokk Yaakaar bu am gis ngeen ñu ci ba ci élection locale yi passé nga xamante ne ki mu taboon fii daf ko candidat man arrangé wu ma woon waaye boole woon naa li ma neex ak li ma naqar yëpp xool jëmmam jooju jàppale ko muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi ñu demee ba ci biir gisuñu li ñu xam taxaw nañ ndax àndu naw la la ñuy ànd ak àndu gor le ministre Seydou Gueye nag li dalal suñu ci moom tey amaana bu fekkoon ne dañu bëgg ñëw APR fekk moom mi nga xamante ne mooy coordinateur bi nekk ci bopp bi déggoowuñ ak moom suñu ñëw du mais yàlla suturaal na ko ba man ak keneen ku dul man nekk ci langue politique gu Médina Seydou am naa ak yow jàmm ba tey lii jafewul nekk nit ku baax koo xamante ne ku yaatu la di yaatal man mun naa wax ne bokk naa cee ay élève parce que kuy gëstu ci moom laa ci lu jëm ci wàllu politique ak xam-xam jëm ci réew mi muy nit ku baax koo xamante ne am nañ yaakaar ne bés bu ñu ko gungee boot ko rogganti ko incha allahu rabbi li ñu ñàkkoon ci Médina li ñu ñàkkoon ci Médina muy cër boo xamante ne war nañ ko ko jox dinañ ko xeexle ba jot ko ndax xam nañ ne Seydou lu mu jot Médina moo ko moom incha allah beneen bi ci des mooy ma bëgg ñu xam ne man aw ma leader président Macky Sall mooy sama leader Seydou Gueye sama grand frère la su ma ko fekkee muy muy xeex damay sot ba pare doo a laajte kan moo tooñ kon kooku buñ ko considéré comme un un leader pour moi nañ ko jàppee benn grand frère bu nekk ci combat petit frère am ñëw di ko jàppale muy sama mag may rakkam nag te defe naa. Euh, képp koo xamante ne am nga sa mag doon nangu ñu sàllalu ko Bamba Fall dafa ma jàngaloon ne ma en politique da ngay góorlu ba sa kilifa nga ñàkk ko mooy kenn du jóg dal ci moom. loolu nag taxawaayu bouclier boobu incha allahu rabbi fas yéene nañ ko taxawee parce que ñun loolu la ñu xam PDS ñu jàngee politique na ñëpp xam ne APR Médina benn leader la am benn coordinateur muy la ministre Seydou Guèye ñu jiital ko topp ci ginnaaw man nag dafa nu muy politiquer sama kilifa kenn du ko laal mooy déclaration boo xamante ne fii laa koy waxee suñu mbokk politiciens yi naa summi sama mbubb leader sol sama mbubb militant wàcc si terrain bi permettre tuma nag ki nga xamante ne man moom laa jiital parce que man Mouhamed Diagne nit du ma lu ma naqari ci Medina kon ki ma jiital man nit du ko wax lu ko naqari nit du ko wax du ko def incha allahu rabbi tama nekk fi dinaa taxaw ci kanamam dinaa taxaw ci ginnaawam dinaa taxaw ci ndeyjooram dinaa taxaw ci càmmoñam nga leer bépp responsable politique bu nekk maintenant ne ku wax ak Seydou incha allahu rabbi daanoo am tontu mais léegi di nga am tontu parce que Seydou du la tontu waaye man incha allahu rabbi dinaa taxaw xeex xeex ko ngir lan président de la République mën a am ndam ci lépp lu mu dëgmal jëm ci Médina parce que nag Médina defena li ñu deseel président mooy sant ko gërëm ko lu mu nekk ñu nekk ak moom deseelatuñu dara parce que 55 milliards bu duggee ci biir Médina ala kulli aleen xar kanum Médina dina soppeeku ala kulli aleen ak fépp fu ñu ko munti dugal njëriñu Médina lay doon kon man jàpp naa ne aw ma lu ma mën a sargalee président aw ma lu ma ko mën a sante wala ma gërëm ko lu dul ñëw rallier këru boppam bi nga xamante ne bu bennoo tasee bii moo fi des muy APR incha allahu rabbi je déclare solennellement qu'à partir d'aujourd'hui Mouhamed Diagne se considère un militant de l'APR qui se considère un un un fervent défenseur du président Macky nga xam ne sama mag la sama xarit la bërki Dembo Ndiaye bi may ñaanal sama papa ci mujj ministre Seydou Gueye la yónni ci man teraanga ju bëri may responsable politique xeebul sama cër ci politique na ma dama bëgg nga jàppale ma kon dara waruma lu dul incha allahu rabbi taxaw. taxawu ko lu mu nekk ñu nekk caak moom lu mu nekkul nekk ñu caak moom may xamal centenaire Gibraltar yëpp ak fépp foo xamante ne am naa fa base politique ci Médina ne incha allah ci fan yu néew yéen ñëpp di ma gis dinañ samp cellule Gibraltar incha allah bu ñu fa jógee dinañ jëm jekkoo bi nga xamante ne mooy suñu pémp péncu maam mm-hmm. jekkoo yàlla dogal na ne titre foncier bi Mboor Jaañ moo ci nekk maam Mboor Jaañ moom mooy sama maam man jekkoo laa dëkk duma dolli jekkoo du ma wàlli yaanu jekkoo foofu laa dëkk njaañeen fa jàkka ja nekk mooy suñu kër donc am na sañ-sañu taxaw fa taxawaayu politicien jàppoo am nañ fa ay xarit am fay soppe am fa base politique bu dëgër dinañ fa dem yaatal ko li ñu am yëpp incha allahu rabbi ñu indi ko monsieur le ministre jébbal la ko teg ci sa loxo comme ni ñu defoon ci parrainage yi mu néew mu bëri ñu teg ci sa loxo buñ ci jógee dañ lay féliciter ci parrainage bi ñu jógee parce que dafa am lu mu wane dafa wane ne yow yaa jara àndal ci biir Médina pour liggéeyal président Macky Sall parce que quand on parle de chiffres ñun duñu ay dof duñu ay jaayil et nous sommes très bien renseignés quand de chiffres on nous dit des 5000 et des des des des des 3000 des 9000 yàlla dimbali la nga am 10 000 plus kon dañu lay féliciter te xam ne ñun gëm nañ ne yow yaa ñu ëpp doole ci Médina kon ñi ngi ànd ak yow incha allahu rabbi xam nañ ne ñun soxlaaloo ñu dara te ñun am na lu ñu soxla si yow mooy nga gunge ñu xam-xam bi ne ci yow ñu jël ko incha allahu rabbi na la leer ne ñi ngi ànd ak yow àndu nawle ak àndu gor tey ñaan yàlla gis suñu bopp ci ànd bi tey ñaan yàlla gis bopp ci ànd bi di wax président Macky Sall ne ko am deseelul dara Médina loolu moom amul ñu ciy wax waaye nag ñooñ Médina am na lu mu leen deseel ku mel ni man 2019 dama bàyyi lépp lu ma jàppoon demoon naa bañ may surnommé le grand serigne de l' opposition amul responsable opposition bu ma toogalul nga soxla sama ndimbal bi ñu ñëwee ba tey amul benn poste de responsabilité bu ñu jox amul benn cër bu ñu jox waaye nag ndokk yàlla ba loolu indi ñu indi wuñu fi woon li ñu fi indi woon mooy jàppale président en tant qu mag ak rak waaye am na ñoo xamante ne li ñu fi indi indiwu leen fi dañuy politique donc ñi nga wax président mu gestu leaderu Médina bi waxuma leaderu Medina yi de leaderu naturelu Medina bi nga xamante ne bi yoon bi lëndëmee nga xam ne bi yoon bi lëndëmee moom la ñu gisoon man ba may xuloo ak waa APR Seydou Gueye laa doon xulool xuloolu moo woon kenn ba ñuy xeex 2014 Seydou Gueye la ñu xeexaloon yéen a ngi nii xamante ne ñoo àndoon ak Bamba Fall ko jante donc bu fekkee ne wax dafa jot rek nañu waxante dëgg man dafa am naa feqari bu may gis biir Medina boo xamante ne man mënu ko concevoir mooy dama fekkee démb fekkee tey am na loo xamante ne su ma ko seetaanee rek je serai comptable ci naafiq boobu du ko def Seydou Gueye mii je l'ai vu faire des leaders politiques de toutes pièces ici à la Médina yoo xam ne kenn xamu leen woon mu tey ci seen loxo di leen yóbbu ci ay dëj di leen yóbbu ci conférence bañ dem ba xam ko wëlbati ko jam ko paaka yi ginnaaw loolu nag du àndu gor du àndu nawle monsieur le ministre dama bëgg lépp lu la naqari woon mu neex la yow du xam nga ma man xam naa xam nga ne du ma waxantu wallaahi ku la laal jot ma salaamualeykum wa rahmatullah